di amaat mbégte rek bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci kat appuis TV mbokk yi ni ñu koy defee ak yéen di dalal ay ndaanaan ak ay kilifa waaye kilifa gii ma toog ak tey nag dootuñu leen ko présenté mu di Serigne jaxate euh, solution askan wi xam ko bu baax a baax a baax ci taxawaay bu am solo bi nga yàgg taxawee askan wi ci dimbal ak faj li nga xamante ni moo di aajo doomu aadama yi Serigne Diakhaté solution 4appuis TV yàgg nañ koo seet si waaye tey nag dañu ko seet si waat dalalaat ko fas yéeneewaat am lu bëri bëri loo xamante ne war nañ ko yaatal ak sénégalais cheikh bi am naa mbégte bu baax a baax baax ci dalal la ma rek nga ndékk mbokk yi ñuy bàyyi xel à travers 4appuis TV. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin saddit lisaani wa saddit mantaxi waxe lahnan bi ihdaami ma kaana wujdaana saddit lisaani nawir janaani safil amaani wasit baraay man jaa bi xasanati faloo xasru amsaaliha wa man jaa bi sayyiati falaa yujza ila mislaha waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu soppi xarit yi waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Ilaas macha allah yaakaar naa ne kàddu yooyu kaddu yooyu ama am solo la waaye Serigne Diakhaté euh, solution euh, dafa am loo xamante ne dama si bëgg taxaw tuuti ñu leeral ci laataa ñu gën a woyal ci yenn kàddu yi nga xamante ne askan wi ñu ngi ciy xaar lamb yi ñu weesu di Modou Lo Ama Baldé dafa am ay kàddu yoo xamante ne da nga ko yëkkati woon wax ko sénégalais dénk leen ko lépp rek ci bés bi mën a jàgg ci jàmm waaye après làmb ji dafa am ay vidéo yoo xamante ne dañu ko ci gis mi ne nag foog ñu toogaat ak yow pour mën ci indi li nga xamante ne moo di ay kàddu leeral yan kàddu ngay leeral ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati woon nga ko ci làmb ji waa kay sëñ El Hadj ñu ngi lay nuyu di si siyaar di am mbégte lool jóge ba Dakar ñëw bi fi fekk ma sama kër. Mm-hmm. ngir bëgg ma leeral ci lii loolu moom ñu ngi la ci sant baax di la si gërëm. ndax man eh, loolu ñurum woon sax bàyyi ma ko woon xel sax. Mm-hmm. waaye comme ni nga ko waxee gannaaw si soppee yi ak xarit yi. ñëpp naan dina leeral ci loolu ndax yooyu sax man daanaka bàyyi ma xel te amul solo. ndax da lay tardé rek ndax ñi la yàlla boole ñiy jëflante yow moom xam la ba baax duñ laaj yow duñ laajte yaa kan yow yaay kan ñi la xamul na xamul la. daanaka kon man su may wax sax ñi ma ñi ma xam may jëflante ñoom ñu gëm ma wóolu ma ñoo tax may wax. ndax yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mi ñu bind sax li mu bëgg si jaam yi amut. ndax boo xoolee bi mu naan yaa ayyuhan naas yéen nit ñi la daan wax waaye bari na ñoo xam ne boobu faaluwuñ ko gëmuñ ko ba mu lazina amanu yéen ñi nga xam ne kon gëm kon man su wax ñi nga xam ne gëm jox ma confiance wóolu ma ñoom laay waxal vidéo boobu ñu dagg dugal ko gis naa ko loolu nag yàlla dama sa dimbale ndax damay faral di wax ne yàlla suñ borom bu la bëggee dimbale bëgg laa yëkkati bëgg laa siiwal dafa am fu mu koy jaare lenn du asaar mm. ba tax na vidéo boobu ñu dagg jàpp ne dañ ma yàqal yàqalun ma dañ maa defaral ndax li ma ci jot ay appel su ma la ak mënu ma laax nu mu toll mm. parce que vidéo ba ña ko dagg di ko dugal sax xëy na ñoom dañoo mënta montage mm. ndax yàlla dama saa suturaal ñu dugale ko comme na ma koy waxe woon na ma koy waxe woon dinaa si dellu siwaat tuuti leeral bi nga fa ñëwee le 28 saa borom seere ma yow mii tamit seere nga ma yow mii nga xam ne yaa ma doon laaj dama ne le 28 bi gisuma combat même sax buñ demoon ba ca combat ba day parce que booba loolu laa gisoon ndax boo xoolee làmb waxtu wu ne bis bu ne waaw ak waxtu wu ne saa yoo koy xool day soppi ko loolu sëriñ ci nga xam ne ñu ngi may diglu wala sëriñ ci nga xam ne xam nañ la sarax xam nañ li may wax tey làmb tey ji mën ngaa gis lii suba mu soppeeku koroon nag la 28 ngeen fa ñëw bi ngeen fa leen la 28 bii ngeen fa ñëw man ci suma combat bu taxaw mm-hmm. même bu ñu demee ba sa làmb ci sa mën naa yàqu waaye nag si biir wax ja ma ne la 4 wala la 3 bu fekkee ñëw ngeen bu fekkee làmb dina am dinaa leen wax làmb dina am bu fekkee du am dinaa leen wax du am dinaa leen wax kii daan sama borom man na seere nga mën a seere nii laa ko waxee woon. Mhm. kon loolu suñu borom dimbal na ma la 28 kenn ku ne xam na làmb amut. ñaa nga xam ne itteel na leen tamit ñu woo ma ci suuf ma laaj leen dara joxe nañ ko ma wax leen kii daan. Mhm. li nga xam ne wax liggéey naa ko ci làmb ji wallaahi wal quraan wa rabbal kafi ku dee sa bàmmeel gëj naa ko liggéey ca ca làmb. Mhm. su ma la nëbbut am naa ci xaalis. waaw kon eh, kamase ñaanal nag jurul may wax waaye nit ñi xam waaye bu dul loolu ñi nga xam ne dama leen seet loolu laaj leen ab sama wax leen diw mooy daan ñu jox ma seen xaalis bari na kon ñooñu xam nan maay kan ñi may jëflanteel xam nan maay kan ña lay woon nag naan na boo mu jox vingt-cinq mille wala boo ma jox dara ma dag ko dugal nag dañuy ay xale ñoom ñëpp jéggal naa ñëpp topp ma si kenn ndax boo fekkee da ngay di kilifa di jàngale di yare am na loo xam ne doo ko toppee ndax su ma neexoon mu ah. am ñu ne ci bi ñoo xamante dañ leen di woo di laaj xaalis ne bu ngeen deful ñu def lii ñaari ñu ma woo ne ma nag damaa bëggoon nga jox ma vingt cinq mille wala ma dugal ko noonu mu tudd loolu baaxut boobu ak kilifa du doxee noonu loolu kilifa du doxee noonu jéggal naa ñëpp mm. si xol bi sedd guy baax pour nga tudd tur ngir mu mën a dimbali loolu du loolu du ko jar. tudd tur yooyu xalaat yooyu yooyu jaru ko parce que loolu day nuru fayantoo day am la muy nuru même bu doon toon xare di wala soppi wala yéen yi sax du ci leeral loolu jaru ko. Mhm. Mhm. macha allah yaakaar naa ne kon euh, leeral boobu am na solo loolu ci li nga xamante ne mooy euh, suñu doorte waxtaan waaye Serigne Diakhaté solution ko xam xam euh, may wi ko suñu borom may ci li nga xamante ne moo di wàllum seet ak ñaan ma dooree ko rek ci wàllum seet ak listixaar yan kàddu nga ciy dikkalaat tey ci askan seet billahi ni mu si sant yàlla rek mën si ma ko wax ndax dama ko man ba xam ne man dama ko man te loolu nit ñee wax du ma wax ne sëriñ si bu doon téeméer maa fi dàq seet loolu du ma ko wax waaye sëriñ si bu ne téeméer lan man bokk naa si juróom ñi dàq seet ndax dama ko yàgg wax li ma mën a seetal ku ma seetal dinaa la ñaanal wala dunu jublu ci përi parce que damay wax ne la wax tabi xam bi rawxaan bi jëmm ji buróoj bi lenn lu ne lay sa la wax dinaa la wax la yow li ngay añee ak la koy wax damay wax ne sa yar ja képp sëriñ bu ko maîtriser mën a seet loo wax nit day jàpp ne yow da ngaa nekk seetal naa ni démb billaahi la si laa ilaaha illallaah dana ma comme danoo bokk benn lal bi ñuy tëdd te ñu ma koy wax mënu ma la wax nu mu toll parce que sa yarde boo ko mënee seet mën koo jural wallaahi la si loo wax nit baat ak toon nit du ko dindi mm-hmm. ba tax na seet moom kun ko defal wallaahi la si dina la ñaanal mm-hmm. ndax dina la wax loo xam ne wax laa kulli xaal nit mënu koo dindi mm-hmm. moo tax man du ma jaanal nit ku ma seetalut ndax neet ni ma seetal nit gis ta bi xam xool borojëm xam ne ñun ñaar ànd man mënu ma laa ñaanal moo tax lu mën a doon bala nga ma laa jafal xaalaa xii la dinaa la seetal muy lu am solo waaye tamit leneen loo xam xamante ne njëriñ la wala euh, aajo la joo xamante ne yaa ngi koy fajal askan bi lu ci mel ni wàllum xëccoo ak wàllum kër gu taxaw Serigne jaxati solution saa su ne def ci indi li nga xamante ne moo di ay solution waa xam nga xëccoo bal xëcc kër ngay xëccoo bal jigéen ngay xëccoo wala place ngay xëccoo dafa doon yoo xam ne li ma ci am ci ay client di ko liggéey mënuma laa xam na dool wala sax kër goo xam ne dafa taxaw wala kër goo xam ne dañ la koo jaay hélas ba pare benn waaye jóge fee bëgg koo ci yow kër bu fekkee ne dañ la ko jaay si kër légal mën naa la sax defal loo xam ne boo fa dëkkul nit du fa dëkk kër tamit du fekkee ne da nga ko amoon ba si yàgg di ko tabax mu taxaw ndax da ngay gis borom ñi nekk Italie yor xaalis ak ñenn ñoo xam ne yor nañ xaalis tabax seen kër jékki-jékki kër ga dëdd ko ah, di jël seen alal di ko def fenn bàyyi kër ga fekk kër ga rab moo fa dëkk wala jënd moo fa dëkk waaye boo seetee sëñ jaxate incha allah rabbi ñu defal la fa loo xam ne lu fa nekkoon day dañ incha allah di tabax kër ga nam egge mm-hmm. ba ci sax jaay kër wala jaay oto wala jaay suuf lu mu ci mën a doon boo seetee sëñ jaxate ñu jaxal lañ tax loola daana jar ci kàttanu mm-hmm. alxuraan mm-hmm. moo xam jigéen ngay xëccoo moo xam fay wax fay mooy wax ji dafa bari siiw na ba pare nga bëgg nag wax ji dootu si waxati boo seet ma am fan yi rek am na coow lu rëy si lamb ji ndeysaan benn waaye ba dama naan la bu fekkee yaa ngi États-Unis dama naan la wala foo mën a nekk si réew mi dama naan la boo demee euh, doo demee wana taqal ko tuuti original bi nga foto ko yónnee ma ko këyit ba ma lakk ko xalaa kul xel wax jooju mujj fenn maa ngi ko liggéey fii di ko liggéey bitim réew mm-hmm. Mm-hmm. naa ne kàddu yi am na solo ci dalal bi ba tey rek Serigne Jaxate solution la waaye nopp gi nopp gi nga xamante ne nag jamono ji nit ñi dañ la ciy buuxante del si xëccoo ngir nga jëflante ko ak ñoom. waaw loolu ñu ngi si sant yàlla. su fekkee ne yàlla rek tax muy wax jamono jii may waxee yow. lu ma si yor lu may liggéey ëpp na fukk ak juróom. ci wàllu nopp googu. nga xam ne am na ñoo xam ne dañuy xaar maam laa ci ñi nga xam ne jot nañ dugal seen amas cheikh bi moo di wàllum nopp gu doy waar gi nga xamante ni jamono ji mën naa ni askan wi ñu bëri dañoo manko euh, dina ci seet si ndax it euh, noobu jooni jooni gi waaye gis gi nga xamante ne kooku ci liggéeyal ak dina ci teg bëtam loolu lan nga ciy wax. xam nga nopp gi moom ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax fi mu toll nii suñ la nëbbut leen ci am ci ay clients ñi ñu war liggéeyal ñu laax nun toll ndax nopp gi dafa efficace mm-hmm. nopp gi 24 xool nan ba tabixa beek mm-hmm. ne bu fekkee ne ki nga xam ne mi ngi biir kër yor soxnaam mm. su ñëwee mën naa ko joxal bu ko raxasoo soxna si dootu ko yemale kenn su fekkee ne tamit jigéen la yar yar jëkkëram faaliwu ko toppatoo ko bu ñëwee su ma joxee célibam ma def ci xam ne dootu ko yemale kenn mm-hmm. su fekkee ñaar ñu mën a sëy dama naan loolu taf-taf la joonu joon du ma la wax 24 heures su fekkee ne nag moom da ngeen a soree nga xam ne dañ koy liggéey yóbbu ko ci guy su ko fanaanal ko fa xool rawxaan bi bu ko attane 24 heures aaj ju faju ba tax na ñu ngi koy liggéey bitim réew di ko liggéey États-Unis di ko liggéey fii ñun koy liggéeyal kenn xamu nun toll te nag li ci gën a doo hmm. waaye ma jaar foofu ñu bari ci Sénégal ñu ngi war doon ma joxaat sama xaalis hmm. yàlla laay seeral lool hmm. macha allah yaakaar naa ne kàddu yooyu am na solo loolu ci li nga xamante ne moo di wàllum euh, nopp gi waaye nag euh, néew kàttan gi nga xamante ne da nga koy faral di wax da ñëw tudd Serigne jaxati solution waaye da nga indi solution ci biir néegu sëy ndax it bëggatoo benn euh, kuy dund loolu di ko génne di ko jàmmat fenn. waaw xam nga kàttan damay faral di wax ne. li ci liggéey xaadiru muxtadiru xayyu xayyumu matinu mutakabir mahinu juróom-ñaari tur yàlla laa ci liggéey boole ko sa biddiw dagg ci xaatim nga boole ko daqaar di ko naan amut benn muskila nattara la te soo ko naan xalaa kuli xaal boo doon man benn di nga mën ñett hmm. loolu amul sikki sàkkal ku yor soxnaam boo ñëwee sama kër dama naan jóoni jóoni la kattan daa bare ay façon am na ñoo xam ne dañ ko judduwaale am na ñoo xam ne danoo fo am na ñoo xam ne danoo danoo danoo danoo seen rab koy def am na ñoo xam ne stress koy def hmm. waay bu mu doon suñ ko xoolee ba yàlla dogal ñu xam ban façon kattan la ñu jox la la nga yeyoo soo ko jëfandikoo di si am résultat ñu ngi koy liggéey liggéey fasantikoo te loolu ñoo koy liggéeyal suñu bopp bari waa na sax ñu ngi leen koy jox wax dëgg fa yàlla koy liggéey dañ ci liggéey ci yoonu sunguf di ci liggéey ci yoonu alxuraan waaye fi ñu doon dem na ba xam ne sunguf si li si ëpp utiliser ko ndox rek lañuy utiliser da nga si am ndam insha allah mm-hmm. saa su ne danga koy faral di wax doomu aadama dafa war a utal boppam kaaraange ndax it eh, gis nañ eh, yoon yi nga xamante ne ndaw yéngi koy jug di dem dee bëri na eh, gaañu gi bëri na waaye lépp rek li nga koy faral di wax ñàkk a jóg ñàkk yoon boobu noonu waaye ñàkk a jógit ut li nga xamante ne moo di kaaraange sa bopp ba taxit euh, képp ku bëgg a jël ci yoon yooyu noonu ne nga na ñëw seet ci Serigne Diakhaté solution. xam nga damay faral di wax ne ndaw dafa wóor wut kaaraange parce que kaaraange mënut a ñàkk yàgg naa wax man gëm ma jamono ji naqar yi yaramu naqar laa gëm gis nga ne fekk bu fekkee rab da koo sonal cat sonal ko gàllankoor bari ci moom mm-hmm. nit dina ko yéene du ko jox dina dugg si mbir di ko lijjanti du sotti bari waa na ñoo xam ne wallaahi la asim kenn liggéeyuñ leen cat dong moo leen sonal ba tax na cat dama si incité waxtu wu ne cat dafa woyu fut am na ñoo xam ne mën nañ liggéey jàpp leen te cat li fekk nit ñaa ngi wax mënoo see mucc yoo xam ne sëñ Tuubaa mucc wu si su ma tuddee sëñ Tuubaa yóbbaale naa ñëpp kon kon ku ne xam na nga ne cat yooyu fut ndax moo waxoon li ma gënoon bëgg toog biir Tuubaa jàngale alxuraan cat moo tax ëmma ko te cat yombut cat moo tax di mun màgg kon cat li muy def kenn xamul nun toll ba tax na nit ki bari waa na ñoo xam ne dañ lay seetal na dañ laa liggéey fekk boo ñëwee si man su ma la joxee cangatu cat gàllankoor yëpp dañ hmm. bari waa xam ne dañuy a sëy mënuñoo sëy cat leen téye bari waa xam doom la tax amun ko cat moo leen téye kon cat wooyufut kaaraange ndaw su ñëw sa na kaaraange laa gën a bëgg moom laa gën a wóolu moom laa gën a bëgg ci nga xam ne ubbi ko rek la bëgg parce que kaaraange loo am alal alal alal te amoo kaaraange bis mën naa ñëw mu yàqu bis mën naa ñëw nga accident bis na ñaaw noonu loola nga jóge say loxo mm. waaye kaaraange soo ko amee lépp loo amati téye ko sa loxo loolu dina dina tega sa loxo mm. ba tax na te jamono ji ñu toll jamono ñu bari gëmatuñ yàlla ba pare ndaw ñi moo tax ndaw ñi maa ngi leen wut ñu wut kaaraange maa ngi liggéey ndomb yoo xam ne képp ku ko takk ci këru àdduna mm-hmm. di nga mucc si rab seytaane ak liggéey maa ngi liggéey yoon woo xam ne ci kaani xeeñ laa ko def ku la liggéey dee wala mu dellu ci moom mm-hmm. maa ngi liggéey ndomb koo xam ne képp ku ko takk dawal atu kenn du la place boo nekk di ko takk moo dem lépp looy def kenn du ko arrêté incha allah te kenn du la loolu ñu ngi xam nañ mm-hmm. euh, ko. ci euh, ba tey yéen ñi bëgg a jokkoo ak moom numéro téléphone yaa ngi noonu ci suufu écran bi waaye nag euh, xam naa ni kaddu yi ñu fi waxtaanee am na sëriñ laataa ñuy ñëw ci yeneen dernier jotaay rek ma ñëw ak yow ci li nga xamante ni saa su ne dama koy wax ndax li mu làmboo ci ay njëriñ muy jaaro bi jaaro bi nag moom ni nga koy waxee ku yàlla ndar te dimbali dool du la woo ba koy am lu tax ngay wax loolu. nga koy liggéey di liggéey ceen ki jaaro bi jaaru la boo xam ne xëy na léegi sama dégg sëriñ di ko di ko wax di ma si perak ndax nit ñi moom daanaka dañuy dégg boo waxee ñee lay perak jaaru bi may liggéey man lenn lay bañ mooy sëy takk ko moo xam si soxna nga sëyal moo xam keneen mm-hmm. boo si mën a séer jaaro bi yàqu na boo yeexee dina ñibbi si wala dootoo ko gis jaaro bi ñuy liggéey am mi ngi aju si rawxaan doomu aadama yi am na ñoo xam ne six mois dinañ am na ñoo xam ne trois mois dinañ saraxe am na ñoo xam ne at dinañ saraxe parce que sa biddu xool xool sa buróoj dagg ci jaaro jox la ko su fekkee ne koo xam ne ma wax la tur nga xam ne rawxaan bëgg na nga koy liggéey soo ko mënut ma defal la ko ñett fan daal say pare na la trois mois wala quatre mois wala six mois wala un a la it eh, loo xam balaa ñu mën la jëndee loolu sarax soo ko def walaay lanchim mm. su fekkoon benn ngay am di am ñaar mm. mbir ma ku nurtu am teraanga doo ko am ñaar mm. ndax kun ko mas a jox sant nga yàlla muy ceen gi muy jaaro bëgg rek dañ koy joxe insha allahu rabbi insha allahu rabbi yaakaar naa ne sëñ xaadim yooyu am na solo loolu nax ñu ma koy waxee rek tey dañoo ñëw fekk ko mu xat loolu waaye nag eh, jaayante na ba may ñu rek lu ñu mën a jàkkaarloo ak moom seq ak moom waxtaan ci askan wi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel eh, ci li may tàggatoowee mi wàllum samp gi samp gi nga xamante ne da nga koy def te képp koo xamante ne def nga ko lépp lu muy wuti suñu borom dina ko koy jox. waaw ñu ngi si sant yàlla baax di la sant. comme ni nga ko waxee xat nan lool. waaye yow kenn du yow yow mu jógee Dakar ba ñëw fekk ñu Touba mënu ci laa fay ñu lay bàyyi yàlla mu fayal la sa bopp. waaye bu dee samp gi ñu ngi koy def te réew mi bari nañu ko fi xam. samp ci jën lañ koy defee képp koo xam dafa yar place. wala nga loo mën a yar ci àdduna bëgg fa mbooloo. bëgg fa mucc boo seetee suñ jaxate boobaa naa la wut 66 jën wala mu wut 72 jën wala mu wut 70 jën wala wala 72 bu ci ne rek am na saar alxuraan bi muy jàpp leen ci dagg ab xaatim sox ko si jënd ñëw ba sa ñu liggéey la ko suul ko fa xalaa kulli xaal foofu dina naataange dina am teraanga te dara du fa mën a yàq si alxuraan mm-hmm. bari na ñu ko xam ci Sénégal gii bari nañu ko xam ci wàllu bitim réew ku nekk mm-hmm. bitim réew tamit te am place dafa mën faa suul dara war nga ma fa dara mm-hmm. ñu liggéey loo xam ne si béjjën lañ ko def boo ko fa defee tamit mbooloo dana fa am ba jaaxal seen mu bàyyi la rek euh, ci nga joxe dernière kaddu yi wi doon yan kàddu ngay dénkaat askan wi yan kàddu ngay dénkaat sénégalais bu baax a baax a baax. waaw dinaa ci ñëw waaye Eumeu Sène Tapha Tine bi sëriñ bi dimanche la ñuy bëre. nga ñu mën a wax ci loolu. Eumeu Sène Tapha Tine euh, ci làmb jooju wax dëgg yàlla duma ci mën a sori. lu tax mënu ma see sori su ma waxalee yàlla ñaanalu ma si kenn. waaw man ñaar man euh, damaa ma jot ndax suñu toon nii may wax yow li ma yor ci Cees yi ma tontu gul mën na fukk. Mhm. kon man du seet loo xam ne dara jënd si. ñaan lu ma si ñaari mbër yi kenn seet siwu ma si am na ku ma doon lewaatool sax waaye mujj sotti waaye kon loo xam ne liggéeyu ma si nag amul lu ma say wax waaw foofu daal yàlla yàlla eh, eh, yóbbu sa combat ku man daan sa morom loolu lañ ciy wax yaakaar naa loolu lañ ci wax doy na sëkk buñ si doon liggéey nag wala ñu siy jëflante kenn mhm. loolu jàllee li may dénk nit ñi di ko dénk sama bopp mooy ñu jàmm yàlla eh, tarafetal te xam ne àdduna amul solo ndax yàlla moo ñu bind indi ñu as suuf ngir ñu jàmm ko waaw maa xalaqtu jinna wal insa illaa liya'buduun binduma nit ak jinne lu dul ma jaamu leen maa xalaqnaa samawaati wal arda wa maa baynahumaa laa'ibiin binduma diggante asamaan ak suuf ci ay fo kon ñu xam ne fo baaxut caaxaan baaxut ba tax na daal lépp loo man ci rafetal na nga ko def te bàyyi ay caaxaan maa ngi jéggulu di jéggal ñëpp di ñaan suñu borom bool ñu defal tawfiix bi jaay alxuraan bi jaay alxuraan sëñ Xaadim muy kàddu yu am solo di kontaan bu a baax a baax ci dalal ko moom Serigne Jaxate solution nii rek lañ koy defee mbokk yi ak yéen di leen jox di daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf